waaw di leen jaajëfal bu baax ci teewaay bi te di leen wax ne euh, tey jii ñun ñëpp sentiment de fierté la ñu am sentiment de de joie ndax kat nag dañoo bàyyi kay gaynde koo xam ne dafa bokk ci sénégalais te gis ne ñëpp nuñ ci taxawee euh, nuñu nu ñu taxawoo euh, Guy Marius Sagna pour mu génn ci kaso bi tey ji nii ñoo ngi remercier d'abord la peuple sénégalais di remercier les droits de l'homme surtout ak ñëpp ñoo xam ne bokk nañ ci combat bi jàpp nañ ci ba keroog ñu koy élargir fi mu nekk nii nag génn naam génnul yaakaar naa ñun ñoo fi taxawoon door waaye li leer ba leer mooy Guy Marius Sagna tey këram lay fanaani ji donc euh, yaakaar naa loolu rek euh, la amoon ci lu ñuy wax te di fàttali ne combat bi nekkul fii lay yem ndax Guy Marius ba muy dem euh, buntu camp buntu palais dafa amul lu ko fa yóbbu woon mooy nañu wàññi courant bi nga xam ne dañ koy yokkute teguñu ko fenn loolu yaakaar naa ñun ñëpp moo ñu fa taxawoon a toog mhm. moo ñu taxoon nekk di manifester moo taxoon tamit ñu naan Guy Marius Sagna ne génn ci kaso bi parce que jàpp ñu ko jàpp teguñ ko ci yoon mhm. tey Guy Marius Sagna génn na ñun collectif non lank dinañ toogaat waxtaanaat apprécier la suite à donner maanaam dinañ toog waxtaan ak suñu njegenaay waxtaan suñu biir wax nan la ñuy def dans les prochains jours mais bu leer ba leer mooy tey jii nii combat bi tey la gën a commencé tey la gën a taxar tey la ñu gën a am farlu ngir fexe ba sénégalais euh, euh, xam ne gouvernement bi dinañ dox ci kawam fexe ba weñ loxoom ngir mu dellu ginnaaw ci euh, mesure bi mu jël nga xam ne tegu ko fenn ci yoon. ñu yëg-yëg ci mbir mi mooy dañu kontaan euh, am nañ contentement am nañ fierté te tamit euh, dañu gërëm Guy Marius Sagna ndax ba mu nekk ci biir ba léegi delluwul ginnaaw yaa ngi gis lettre yi muy génnee sax mu ngi wane ne kii dafa gore kii dafa gore moo tax ñun dañu ne kii duñu gën a gore moo tax xeex na ba génn ñun tamit xeex nañ ba mu génn dañu àndaat xeex ba ñu wàññi courant salaamaaleykum